moom euh, artiste bi su fekkee ne dañ ko caractérisation franchement li ci du metteur en scène du réalisateur du moom moo lay wax lii wala yow am sa inspiration bopp soo comprendre sa texte normalement war nga ci indi loo xam ne nii qui day mais man bëgguma yu sew sewaan yi du duñ la ko jox yow man bëgguma artiste boo xam ne nii da ngay toog rek ñu naan la lépp dañ la koy wax le metteur en scène n'est que simple facilitateur mais leneen li ci des nag yow yow mi nga xam ne yaay yëg yaay extériorisé waaw mais nag en na compte ci bu du li ñu bind jox la bul génn bul génn canevas loolu rek la waaw waaw xam nga moom euh, mbetteel moom Euh, c'est le quotidien des sénégalais Les sénégalais d'une règle ce waaw euh, am te nga wax les dafa am na parents yo ni, lu sen def mi ngi ci jigen nañ ma mu ci lu def tant que mu ngi leen di jox xaliss ak ñu ngi te xamoo xaliss mu lay jox fu ko jëlé. xamoo ndax daf ko sacc daf ko daf ko def ci leneen. loo xam ne na xaalis bi ñëw rek li des yëpp yow sa yoon newu ci donc soo amee sa doom bu jigéen muy xale bu ndaw nga gis mu génne cent mille francs teg ci taabal ji génne jox la lii génne war nga ko laaj fan nga jële lii noonu la mag ñi daan yare man sa maam boo mësee na ñëw yor xaalis mu ne la foo ko jële sa nopp lay jàpp ne la foo ko jële boo jàngul ba dem foo xam ne nii dangaa war a tari di am gàcce tax nit ki lu muy def daf ko a jang tayer bi ngay jënd sa piisam jox ko mu jël siiso di xotti di xotti kooku daf koo jàng bu ko jàngul woon dina fay piis ba son théâtre bi tam dañ koy jàngle na nit ñi dem ci formation yi def formation am les ba ba au moins du théâtre mën a xam metti si àdduna euh, mooy gis nit koo xam ne nii dafa soxla te mënuma koo dimbali man su ma sañoon ñëpp ay am man mënuma gis nit mu ne yoruma daf may metti su ma yoru lu ma ko jox daf may metti moo tax damay ñaan yàlla toujours bu may may pour may mën kuy soxla rek ma mën laa déedéet man ay couleur coloration politique laa amul ndox lu tax coloration politique laa amul lu tax ndax man xam naa ku fi ne dinaa fi ne bu ma deewu te li ma yàlla war a jox dina ma ko jox man nii nga may gis Baay Faal bu gëm yàlla laa dara fëkkuma dara yóbbuwuma man dara yóbbuwuma man xam naa ne man Baay Faal laa te jullit laa demaa gëm yàlla te xam naa li ma yàllay jox bu fi keneen nekkoon it du te yàlla na ma ko jox. rek sant leen di kontaan ci invitation bi vraiment kontaan bu baax a baax ngeen gën a góor góorlu ci lii ngeen di def ndax lii ngeen di def dafay tax ñoo xam ne nii ñu ma bëggoon a jege te mënuñu maa jege yéen facilité ngeen loolu donc vraiment ñu nit dañ leen di jaajëfal ci lii ngeen di def. Il ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defal leen ba ngeen am seen télévision tabax benn R plus 20 dégg nga def fa lépp studio yeeg lépp ngeen def ko di def ay des ak lépp maa ngi leen di